Cheikh bu Diop ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay ñu am mbégte ànd ak yow ci waxtaan bi yow yaa yor kaddu mouvement citoyen gëm sa bopp Bougane Gueye jiite ko jamono ji yéen a ngi ci biir Sénégal tàmbali ab tournée euh, démb wala tey euh, ngeen tuddee ko nag tibb tànki Macky Sénégal tampi na lu waral ngeen taamu fu président jaar ngeen jaar fa. waaw maa lay gërëm di la sant taamu ñu sax fu président jaar ñu jaar fa. xanaa kañ Wolof Njaay di wax rek tombee waral ay gaaf ndax gëm su bopp dañu am feuille de route boobu nag bii pas dafa tombeek mu taseek bu président de la république ñu ne nag bon duñ ci dellu ginnaaw duñ ko dàq dañ ci continuer di ko def te li ñu koy defee liñ ci jublu mooy déconstruire li tubaab bi wax déconstruire discours président Macky Sall ak ñi mu àndal mooy maanaam jàpp nañ ni lépp lu muy wax du njëriñu askan bi lépp lu muy wax pour nax askan bi la ndax mi ko tuddee tournée économique te boo ko saytoo càmbar ko nga xam ni lii du tournée économique waaye tournée politique la. yéen li ngeen di def tournée lan la politique nga ni. yéen li ngeen def tournée lan la nu mu tudd. mais ñun tournée politique defuñu ko ñun dañu nekk ci période de massification et de communication avec les populations comme ni ñu ko yàggee def. Hmm. may fàttali rek. say auditeur ak auditrice ni que gëm sa bopp bii mooy ñetteel yoon muy def tour du Sénégal bii nii 2017 ak léegi def nañ ñaari yoon bii mooy ñetteel yoon bi kon ñun tàmb nañu terrain bi hmm. xanaa kañ ñun dañoo gëm ni dañuy dem ay élection locale ñuy pare suñu bopp te nëbbuñu ko waaye moom dafa bëgg pare élection locale yi di ko tuddee tournée économique te xam nañ ni di tournée économique tournée politique la hmm. yaa ngi gëm gëmloo ni euh, tournée bi euh, lu ngeen programmé lu yàgg la mais duguleet ci Bougane mu muy toppan mel ni kuy toppandoo Macky Sall ndax gis nañu bi fi président defee conseil national jagleel ko mbirum xëy moom tamit dafa xëy rek dem seeti ndaw ñi di wax wàllum xëy te te itam du boobu kase lañ mun a lañ mun a xool ci Bougane euh, ne dafay topp tànki ki Sall est-ce que gëm sa bopp loolu la est-ce que gëm sa bopp du xàll saw yoonu bopp waaye moom fu mu aw ngeen aw fa loola moom luñ ko mën a tuddee. waaw xam nga président comme ni dañoo wuyu turu li ñuy woote malay fàttali deux mille dix huit bi président Macky Sall jëlee bés ne moom lay def pour déclaration d'investiture am yóbbu ko fële te jam ñaajo bés boobu la gëm sa bopp tamit jël sat Amadou Bari ne moom bés boobu lay def investiture am kon yéen Macky ngeen teg bët yéen non may ma rek yéen taskatu xibaar yi da ngeen doon wax waa gëm sa bopp ndax dañuy xaru. Mm. waaye bi ñu ñëwee feesal sac Amadou Bari feesal ko dell ci ay militants yu nekk diggante ndakaaru ak la banlieue kenn jógewu ci ci région ki ngeen soog a xam ne ndeke gëm sa bopp bii du caaxaan te bés boobu la Macky Sall ak ñi mu àndal ne eh, du fi amee Bougane Gueye Dany nii du fi nekk candidat kon ñun xam nañu lan lañu tekki ci réew mi ak lan lañu pesé léegi encore une de plus bu nekkee lii dafa daje yéen li ngeen waroon njëkk a laaj mooy tournée économique bi. Hmm. président Bougane Gueye Dany def na ko benn weer ci ginnaaw dem fi Lompoul dem Taïba Ndiaye dem Mboro bi ñu fi tegee ñaari semaine la ki Sall soo ko wax ni ngay def tournée économique. dem fa yéen añ taskatu xibaar yi yéen a war a laaj ndax président ma Macky Sall day toppandoo président Bougane Gueye loolu mooy laaj bi. Hmm. waaw waaye tegu leen ko bët ce que tamit ni nii ngeen jóg de mën ngeen ko eggali fu mu jaar ngeen jaar fa lu mu def ngeen bëgg ko def am ngeen moyen yooyu. non non da ngay wax ndax président Macky Sall du sonn ak tàyyi ci xel ak xalaat bu waa gëm sa bopp xalaat ba président Bougane Gueye Dany te moom mu ñuy toppandoo. ah kon Macky leen di toppandoo président Macky Sall. président Macky Sall ak waa bennoo Bokk Yaakaar ñoo ñuy toppandoo saa c'est clair. mais beneen bi ma laaj ndax gëm sa bopp li ñuy def ni mën nañ ko naam mën nañ ko yàlla ñuy dimbali mu ngi ñuy mën nañ ko boo seetloo tey amul ci ñi fi nekk yittewoo réew mi kenn ku pare pour jóg daf campagne dem à l'intérieur du Sénégal parce que Sénégal du ndakaaru kese ñun waa gëm sa bopp ak suñu njiit biñ ko xamee du tey moo tax bés bu nekk ñi ngi ci àll bi bés bu nekk ñi ngi ci wetu askan bi ba fi nekk ñi ngi dem pour conquérir ay militants yu bees alors stratégie de massification bi ñu nekk nii di ko dawal incha allahu rabbi yàggatul dara tey moromu taskatu xibaar dinañ la ci jottali di ngeen gis gëm ko mi ngi ci terrain bi ma ki sàll bu ko jaralee mu dem ba États-Unis pour battre campagne ñun jaral nañu ñu dem ba États-Unis lu mu fa wax ñu dindi ko lu mu fa gas ñu suul ko ndax jëfeewul lenn loo xam ni njëriñu askan wi la. kon bu ma la déggee ci tànk yi daaneel Macky Sall ngeen nekk euh, euh, leer na ni Bougane dafay doon candidat ci élection présidentielle bi ñu dëgmal 2024. dama ne loolu moom. ci biti la fanaan comme ni ko Saalum Saalum yi di waxee. mooy géej gi am na ndox ndax président Bougane da Dany day nekk candidat 2024 mais loolu du information. Hmm. loolu picc yi sax ñu ngi koy fat xale yu ndaw yi primo votant yi looloo looloo tax ñoom ñëpp ñu bugg am carte électeur parce que primo votant yi ndaw ñi ak jigéen ñi jàpp nañ ni gëm sa bopp ak président Bougane Gueye Dany lii ñu dëgmal buñ ci teggiwul seen tànk lii mooy njariñu Sénégal te lii mooy tax Sénégal nekk ci naataange bi nga xam ni moom la ñu doon wut di ko yaakaar cent 1960 ba léegi. Hmm. am na picc yuy sabee ni itam Bougane mi ngi ci tànk yi euh, wuy ji Macky Sall et sax am na ay waxtaan yuy am fi ne loola loo ciy tontu. li ma ciy tontu mooy loolu daraamu ci président Bougane Gueye Dany ak waa Gëm sa bopp waxtaanuñu ak président Macky Sall waaye dafa am loo xam ni dafa laaj leeral leeral bi mooy gis nga bu nekkee ab réew da ko bëgg comme président Bougane Gueye Dany ni mu ko bëggee bu réew mi di jànkoonteeg ay jafe-jafe président soxla xel ak xalaatu sénégalais yi pour jafe-jafe yooyu nekk suñu ginnaaw président Bougane Gueye dani président Macky Sall bu ko wooyee pour laaj ko xelam ak xalaatam dana fa dem dana ko yóbbul xelam ak xalaatam bu rafet pour njëriñu réew mi waaye loolu wonewul ni da koy fekki loolu wonewul ni président Bougane Gueye Dany génn na ci opposition radicale bi ndax foofu la bokk waaye njëriñu Sénégal moo ko gënal lépp saafara jàngoro doomu Sénégal yi mooy yitteem ci lay xëy ci lay gontu ci lay fanaan te képp kuy ànd ci loolu la lay tàggat kon ko bu nekkee dafa am ay lënt-lënt ay tolof-tolof ñu woo ko laaj ko xalaatam mm. moom dana dem joxe ko ndax président Macky Sall mooy président sénégalais waaye ba mu fay dem pour joxe ko. du mm. pour fekki Macky Sall. waaye dafa dem pour joxe ko pour saafara jàngoro askan lii ngay wax nii nag am na ñoo xam ne moom la ñu joxe eh, nim lay ba ñu demee wuji président Macky Sall est-ce que dëgg-dëgg nekkoo leen ci tànk yooyu rek bëgg ñoo euh, sëlëm suuf. waa waaw gëm sa bopp musul nekk ci tànk yooyu. Mm. te gëm sa bopp ndoowul ak ñooñu ngay wax ndax ñooñu ay politiciens lañu. te président Bougane Gueye ak ñi mu àndal du ñu ay politiciens. mouvement citoyen la ñu yor mouvement citoyen boo xam ne ñi ngi ko tëgg ci bëgg réew mi ñi ngi ko tëgg ci saafara jàngoro askan bi ñi ngi ko tëgg ci njëriñ askan bi waaye tëgguñu ko ci njëriñoo askan wi ndax ki nga xam ni moom ci dooleem ci kàttanam ci mën-mënam ak sañ-sañam mi ngi ciy dimbali sénégalais yi te du chef de quartier du préfet du ministre du député du président kookee bu la nee bu bu ngeen ma joxee réew mi dinaa saafara jàngoro askan bi te alalu askan bi dinañ ko delloo ci bëgg-bëgg ak lënt-lënt askan bi pour saafara ko pour ndóol ndool bi ci nekkee dañ fi kon di ko gëm loolu moo tax sénégalais yi. mag ak ndaw góor ak jigéen dellu jox bopp président Bougane Gueye Dany ñu bari it ci mouvement lañ tàmbalee woon di wax lii ngeen di wax waaye dañoo mujjee doon parti Cheikh Sadibou Diop est-ce tey mun nga ñoo jox loo xam ne nag war naa tax ñu gëm lii ngeen di wax ndax lii ngay wax nii déggoon nañ ko fi c'est du déjà entendu niñ koy wax xam nga li may wax nii lu tax mu neex a gëm hmm. man ba tey maa ngi xeex musuma fekki nguur musuma ànd ak nguur hmm. ñi fi nekk ñëpp musuma nekk militant de parti man musuma bokk benn parti. Hmm. waaye président Bougane Gueye dani bi ma ko déggee mu wax dama ne waa man kii laa mën a àndal. Hmm, loolu rek war na leen doy garantie ni que président Bougane Gueye dani du nit koo xam ni day wax lii tey dam jëfee ne lay ëllëg mais président Bougane Gueye dani en tant qu'homme d'affaires moom li gën a yi sedd ci moom mooy mu def nañ nguur Macky Sall waaye musu koo bëgg ba ci parrainage bi nguuru Macky sàll bi ñu buggee mu jàppale leen dafaa bañ. Mm. bi weesoo passage bi nguuru Macky Sall ba tey ñu ngi daw ci ginnaaw bugaan pour mu fekk leen. ah kon ñu ngi koy buggul loolu non may ma rek. buggul loolu. Mm. bugaan nekkul ci loolu. parce que bugaan nit la koo xam ni lu muy jëf da ci jël askan bi comme seede lu muy jëf nattukaayam mooy askan boobee nga xam ni da leen yërëm nattukaayam mooy askan boobee nga xam ni moom saa yu leen xoolee. rangooñam day tuuru ndax bëgg ak yéene gim leen yéene jàmm kooku mënut def leneen lu dul topp bëgg-bëgg askan bi mënul def leneen lu dul ànd ak ñoom ci xeex bi ñuy xeex nii ñun au de gëm sa bopp comme ni ko tubaab di waxee. Mm. c'est non négociable. d'accord bëgguñu fekki Macky bëgguñu ànd ak moom. d'accord nekkuñu ci tànk yooyu. Mm. nekkuñu ci jëfin boobu ñun kañ li ñu bëgg mooy jëlee fi Macky en deux mille vingt quatre. Mm. wuutu ko Sénégal. tàmbali door nekk ci jàmm. moo waral ngeen di tibb ay tànkam alors euh, opposition bi annoncé nañu coalition bu mag boo xam ni ci la ñuy demee ci élection locale yi lana ciy taxawaayu gëm sa bopp. taxawaayu gëm sa bopp mooy dañoo jàpp ni mbooloo mooy doole li ñu jàpp mooy ñu ngi dem ci élection locale yoo xam ni candidat bi nga xam ni moom moo nar a jiite lépp muy président Macky Sall te tàmbali ne ko. ci tournée économique am bi tournée politique bi mu tuddee tournée économique bu ñu bëggee daan Macky Sall foog ku jéggi ñëpp ànd doon benn ñu ku nekk ñu xool gox bi nga mënee ñu bàyyil la ko ba pare ñëw jàppale la c'est-à-dire démarche consensuelle dans un cadre unitaire teinté de responsabilité et de respect de cordialité mais surtout de solidarité loolu moo fi mun a jëlee ñi nga xam ni ñooy meeru Benno Bokk Yaakaar yi képp koo xam ni danga nga jóg di def safaan boobu maanaam démarche solitaire loolu duñu dooleel au contraire day fragiliser opposition bi. Hmm. président Bougane Gueye Dany ak waa Gëm sa bopp li ñuy woote mooy ku jéggi na ñëpp ànd waxtaan ñu am benn euh, démarche boo xam ni ñëpp a ciy d'accord boobaa gëm naa ni. bu nekkee élection locale yi mooy premier tour deux mille vingt quatre. Hmm. Macky Sall jàpp premier tour yi ñàkk na ko ndax bu ku jéggi àndee gisuma lu leen di tere gagné majorité des communes au niveau du Sénégal. moom Bougane ban gox lay yootu pour jiite ko ci locale yi. loolu yeggaguñ ci ndax li tax yeggaguñ ci mooy ñun mënuñu proposer démarche consensuelle. Hmm. ba pare di di wax ni Bougane candidat la fii wala candidat la fële. démarche consensuelle boobu lépp loo xam ni daal tënk nañ ko ñun pare nañ ci pour ànd ak opposition bi ci loolu. jërëjëf Cheikh Sadibou Diop euh, ñu lay gërëm bu baax a baax ci ànd beeg ñun euh, donte yéen a ngi ci biir Sénégal tey euh, notamment ci bët gànnaar gi fi Macky Sall aw président Macky Sall foofu ngeen aw di tibb ay tànkam ci ab tournée yéen a ngi liggéey mi ngi liggéey ci cappaandaw la daanu xam nu yëf yi mujjee ñu ngi lay gërëm.